jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi ci stade suñu arène fi nga xamante ni ñoo ko moomal suñu bopp muy arène national mbokk yi ki ñu fi woo tey di Big Pato Events grand combat bi dox ci diggante Pape Diouf ak Big Pato numéro 2 muy tubaab boobu nga xamante ni jëli nañ ko aéroport jëli ko signature contrat tey la làmb ji. àdduna bépp di ko xaar di xool tubaab bi lan fan lay mujj ak mbëru Sénégal bi. ñu xool boo xam tubaab bi day jël victoire bi yóbbu ko Hollande wala ki nga xamante ne mooy Pape Diouf day mujjee tee ndam la fii war ni ko làmb ñu ñoo ko moom suñu cosaan la en tout cas daal ñëpp a ngi ci biir ambiance am na cosaan am na tubaab bi sol na sër yëre rabal la sol yére rabal takk ay dàkk ak ndaam def segoor def lu nekk ale dugg ci biir ñu dégtal leen ko kaay Adama tubaab bey tuus kaa ñu dem kaay jafe jafe waaye laay la la awaay ñëw nga foo xamul waay day nga xam lépp dëgg mooy Socé 2. moo ngeem moo ngeem bu weex bi. waaw Socé 2 ak suukar suukar ak Socé 2 mbokk yi ñu ngi noonu dégg ngeen sànq li nga xamante ni <laughs> moom la tubaab bi def ci wàllu bàkk Socé 2 suukar ndaysaan suukar moom daa saf sap. suukar moom def neex. ah dina neex moom. maa la ko neex lay sax. waaw ban xeetu neex. neex neexu suukar. xorom tamit naqariwut de. ah xorom neexul de bu amul xorom du neex de. waaw ah, day lewet. ah. billaay waaye ëpp ga baaxul. soxna tamit neex na de. soxna dafa baax. Ah, baax dafa baax takk jabar <laughs> baax na ci kàddu bëgg naa de jël na ko jël na ko jël na ko suukar. génne door laay laay la laa soose soose soose jël na tànk ba boppa du liggéey daan na ko soose deux daan na soose deux daan na ko suukar bi neexul de la mais ki kay ndox la suukar bi kay safut dara suukar bu am ndox waaw suukar bi est-ce que dëkkul Thiès déedéet déedéet <laughs> Lamine kenn du laal waa Thiès léegi déedéet ndax ñoo la may soxla maa la ko wax buñ dóoree mbëri Thiès lay wax non buñ dóor si di jaxase ah <laughs> waa eh waxal yow. Père Ibra nuyu naa la. maa ngi lay fay fiis. maa ngi alhamdulilah. sa doom nga gémb ko mu fas yéene bëreeg tubaab bi est que day bëreeg moom carrément. wax naa ko léegi ma ne ko kii gan la xamoo lu mu ma ne ñu su li nga xam ne moom lañ cosaanoo ñëwal nga def ko. parce que waa ji mën na jàng boxe mën na jàng karaté mën na jàng lu ne mais yow fexeel ba noo ko jàppale daan ko dem sa yoon bu fa nekk si di xeex moom parce que dara wóoru ci dëkk fi xamuñu ko te dara wóor na ñuy defam lu ñuy jàng avant ñëw Sénégal bu nekk tout tànk leen ñuy jàng armation dina jàngal lépp donc euh, ñoo fexeel ba jàppante moom daan ko dem sa yoon. dégg nañ sax que moom jàng na lutte gréco ba champion la ci ndaanaan la. Pape ne li mu war a def mooy tonk bu waa ji tontee mën a coppe tànk bi yenn ko wala mu weñ ko amul leneen lu muy def ci làmb ji loolu dong moom laa bëgg mu def ko te wax naa ko tamit xëy daal bëgg mu def ko parce xamuñu waa ji lu mu indi na mbapat daan waa ji jël bu gaaw dem yoonam. Ah, ñu naan day combine pour tubaab bi daan ko nag. waaye yow kii tubaab dina jógee fa ñëw ñu bëgg mu mu gëj moom bu daane tubaab bi sax ñëpp koy soxla fi mu nii na lu mu wane ki jóge France nga daan ko say morom nga su ko defee nga mën a amaat combat nag Pape deful te xam ne li ko indi tey wallaay. dina ànd ak mbër muy kombi. yaa de xalaatuma ko ci àdduna. loolu kay bu naree am moom bala ngaa dem làmb sama toog sama kër man. Ah. ma jël avance indil la. non commune mënoo ko moom donc da ngay daal wala ñu daal la rek mais doo commune moom. keroog dañoo dem dégg Boy Niang numéro 2. mu def benn sortie am lu mu ci wax ne dafa dem seeti Père Gaston pour combat bi nga xamante ni moom Balla Gaye 2 ñoo ci waroon bëre ñu ne bu wéree Balla Gaye dina bëreeg booy Niang mais bu Balla gay wérul day bëreeg Gris Bordeaux Gris Bordeaux day bëreeg mbër mu feebar wala déet. déet eh, xanaa booy Boy day bëreeg mbër bu feebar ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sa contrat duggul CNG dañu dogal njëg rek Gaston nag mooy xool combat bi mu bëgg. mais ci yoon comme dañ ne woon combat bi boo bu Bombardier bëree booy bi moo ciy topp booy bee war a bëree. ci yoonu làmb mooy booy Niang yoonu làmb parce que ñëpp dañu programmé le parce que Boy Niang bi mu jël avance Gris Bordeaux jëlagul avance kon ci yoonu làmb nañ bàyyi Boy Niang bëree lu ko fa yàlla may mu jël Gris Bordeaux door a bëree maa gën a bëgg Gris Bordeaux bëree ak Balla ci heure bii mais nag wax dëgg yàlla bu fekkee dañ ñu joxante avance bi rek la Boy Niang moo war a bëree. wallaay ñu bari wu ci contrat bu njëkk bi Gaston joxoon avance Gris Bordeaux te Gris Bordeaux delloo woon avance ñu bari dañu jàpp ni Gris Bordeaux moo njëkk a jël avance. boobu Gris delloo woon na avance ba yootul Gaston ñaari dërëm dafa jotaat avance te bu avant mi jot avance Boy Niang jot na avance ci yoonu làmb daal Boy Niang moo war a bëri ak Balla Gaye man laa wax de xaw ma nag Gaston lu muy def. Boy Niang kon lim ne su Balla Gaye jëlee Gris Bordeaux dootul bëre Gris Bordeaux dootul bëre Balla Gaye am na ci droit. ah non droit bi mooy ñoom est-ce que fu ñu signé contrat parce que est-ce que ci avocat ga rek. parce que lamb tamit dafa am ay ay ci nekk mais ci yoonu lamb Boy Niang moo war a bëri normalement. waaw jërëjëf. bi de mooy drapeau ba gën a ci lamb ji. Ah. drapeau lu TV. Ah. nga xam ne Mouhamed Dieng ndeysaan mi ñu ko tuddee. waaw ah. couvre-feu bu ñëpp xamee bi ko doo xam ci lu baax. moom moo nekkoon ci ginnaaw liggéey moom ñoom Lamine. kon day day baax parfois ñu leen ni doo kon ñaari xale yi gis nga combat équilibré li lañ doon wax mooy Mohamed a ñëwul xam naa daal daa foogoon da nga koy laaj enveloppe. non Mohamed comprendre naa ko daa feebar. ah non maa laa mujj di jeexee fii takk na ko de takk la de. jàppante nañ. doy la. Eh, eh, eh, waaw waaw. arbitre am ngeen problème. arbitre yi am nañ problème. borom ngemb lu bula li. moo daan moo daan déedéet borom ngemb. moo daan tey dafa teg fes ba pare xoolal fes bi. mu ne lan. arbitre bi mu ne lan. arbitre bi mu ne lan. bu loolu daanu. lamb ji jaxasoo na de. jaxasoo na de. jaxasoo wu say man kii dafa teg dafa eh, Adama am nga mbir. combat bi yéeme eh, nañu dem vaar vaar vaar. na nga def. na nga def. ça va yaa ngi ci jàmm. ma ne fii. yaa ngi ci jàmm. a ci jàmm. yaa ma ne fii alhamdulilah yaa alhamdulilah. noo ñëwee noo ñëwee. jërëjëf. jërëjëf lan ba yow kay bala ngaa jërëjëf baal ba combat bi jeex noo ñëwee. what you come here. what you come here. in French. yeah in French. it's okay. oui. je suis très honoré honoré with euh, avec votre accueil. Oui. je suis euh, ici étudiant. de cultuur de Sénégal, de combat de Sénégal en la lutte avec frappe. Eh. Ouais. Qu'est-ce que c'est Combat du Noyombo. Du Yombo. Du Yombo. Du Yombo. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi liggéey liggéey. da nga liggéey liggéey. da nga liggéey liggéey. oui oui. prêt pour fight. waaw waaw waaw waaw waaw. fight. fight. waaw waaw waaw. gauche. gauche bi. préfère left left. <laughs> waaw waaw. waaw it de génn na ci wax na bu génn ci de <laughs> ah, waaw waaw ah, Lamine. Lamine de wax na bu génn ci Lamine wax nga bu génn. bañ a. ma lijjanti na boppam mu ñëw Sénégal kay. ma lijjanti. damay jàngi anglais. left left. <laughs> left. laasana tubaab bi nu ngeen ko yabee. non tubaab bi duñ ko wax mu dal rek parce que su ñëwee dëkku jàmbur moom ah ku ñëw dëkku jàmbur tey li nga xam ne moom moo war mooy euh, nga tey maanaam comme seen comme suñu culture la te seen culture liñ ko wax mooy na dal tey te xam ne mu liir combat yi nga xam moo njëkk am jàngat ci maanaam pour combat mu mën cee mu mën a bëree noonu quoi. ñu ci bari nee nañ Pape bu mu xeex ak moom. bu mu xeex bu mu xeex tubaab bi ndax xamuñu lu mu mënee ci xeex. mais na fas yéene jàppanteeg moom bëre na ngeen ko ci wàllu jàppante bu jàppante mën a. waaw man ma gis li ma gis tubaab bi ñoo ko entraîné préparé nañ combat bi mais tubaab bi euh, yàlla may na ko mu ànd ak conscience am dal te il est trop rapide maanaam tëlewul bëre tëlewul bëre xam naa su suñu jàppante moog Pape Diouf xëy na Pape Diouf mën na ko ëpp kattan mais mën na ko bañ a ëpp doole mais man gëm naa ne suñu jàppanteeg tubaab bi. tubaab bi na na koo mën ko juumloo daal. mën na ko juumloo waaw mën na ko juumloo parce que loolu entraîné nañ ko entraîné nañ ko tubaab bi quoi. waaw. ayca koo indi. bas la sama turando. sa turando. waaw yow ma tuddee boppam waaw mu ngi ah. waaw. loo def ci làmb ba mu tuddee la loo ko defal ba mu tuddee la boppam. kii da nga yàgg man ak man lool quoi. nit ku la tuddee boppam garaaw na. torop. suy bëree ban yëg-yëg moo war a bëri le le vingt mars. kon yow bari ngay turandoo de. waaw sant yàlla rek. ñaar turandoo nga yeneen. ñaar la am am ñett sax ñett. Ah. waaw. barki dem damaa dem jëli Pape Ndoye. ci open press Serigne Ndiaye 2. mu wax seen diggante yéen ñaar nee na yow mosoo koo ñeme. te doo ko mos a ñeme. loolu dama sonn ama ci parole. ama ci parole ci loolu. doo wax ci moom. bëggoo ko mooy loolu mooy bëggoo ko. ci parole ama ci parole. léegi kan nga bëgg. kan nga bëgg. bu jëbu Yoff la am naa bu Yoff wala am na am Thiès bu Thiès waaw. su ma naree am lu yomb yàlla naa bàyyi la am. armé nag. non soxla ma ko. bëggoo armé. man dama may ku nekk du ma may gel loxo. mais kon naa ne ci saako yi. Hmm. armé nga wax bu benn barak. day xaar. tëgg Adja Xaar Mbaye Adja Adja Xaar Mbaye. man de loolu way rey foofu toog. bu xaar la ci Adja Xaar Mbaye. na dem toog foofu xaar waaw waaw. mais ñaar ñi daal bëgg nga leen. ñaar ñi daal bëgg nga leen. ambulance bu Thiès ambulance bu Thiès bu Thiès bu Thiès sama fekk ko Thiès. bëreeg moom. incha allah Sidi Diakhaté nee na loolu kenn ñeme ko. wóor na sëñ bu biir néegam. dem Thiès bëri ji. dëgg la ma la wax. à l'extérieur. ba du ma jéggi paa. non non. Ah. jabar. Ah, dégg la wax mu dem takk. Ah, demal takk jabar wax na la jabar. isa am. laa ba ma ay jabar am kañ ba ma bu yàgg. démb la takk jabar ma takk soxna ñàkk nga jóg moom bëri baa ngi lay rey gisoo lamit lim la rawee gisoo lim leeree yaa ngi ñuul kuk dama takk soxna dama ah. leer dama leer kon kay loolu ko jaar takk jabar leer bi daa gaaw sax mu danta gisoo mu danta bu bu mu njaam gi toog na ay reporter yi dañoo mer dañoo mer eh. waaw mbër nuy naa fay naa la waaw maa ngi sant bu baax waaw comme ni ñu daan waajee rek waaw koy bëre booy ndooy xam nga ko. keesa quoi. waaw. gàllankoor bari na de moo tax booy keesa. Ah. waaw mais gàllankoor bari de. mais lii du dara ay muslaa la rek. Ah. xeex waaw bëri dóor lan wax lépp ah. waaw incha bi mooy sa premier combat. waaw du mbooloo bi ñii ñoo ma topp. nit ñi ah. de. ah ñii yow yéen bin am si man laay mottali rek incha allah rabbi waay naa la la ilaha illallah premier combat ñii lan nga leen wan ba ba indi ñii ñëpp déplacé wóolu seen mbër yàgg ànd ak ñoom fu ne si làmba si mbapat billaahi wallaahi tallaahi may am ay ndam ñuy topp sama ginnaaw ñii incha allahu rabi dama leen di liquité waaw dama leen di liquité ñii incha allahu rabi waaw jig na ma baax suma la mais fii na bu naa nag ay affaire gars yi na dañ ma jox ma boole man dama war a boole ndax damay bégal Sénégal yi tout le temps. yaa ngi toog te dama am gang bu nekk suma ginnaaw ah. fan nga toog maa ngi Ousmane laa indi Ousmane kii. non da ngay dem léegi. non toog ko sax damay dem gis ah, suma ménage. pour ñu ndeysaan mu ngi noonu. lamb jaa ngi noonu. Adama Ndanaan yaa ngi noonu Boy Faye. ndeysaan ma nga noonu ñu ngi bëre ñoom ñaar. cey soxor kele ak Boy fay soxor kele ak booy fay ndeysaan soxor kele booy fay soxor kele booy fay ñu ci làmb ji dara amagul ba tey soxor kele booy fay soxor kele booy fay ah combat baa ngay bëgg a yàgg nag combat baa ngay bëgg a yàgg nag am na ku ci noppam di xonq di naaj jël na soxor kere booy fay soxor kele booy fay soxor kele ak Boy Faye jël na ko soxor kere Boy Faye wër na ko ndomba daan na Boy Faye daan na soxor kere Boy Faye daan na soxor kere Boy Faye daan na soxor kere waaw waaw kele. soxor kele waaw. laajte ma gosu man combat bi doo léegi ma xaw a tuuti sama gosu dama ko dama ko respecté li ma wax laa bëri kii maa ko dàq bëri maa leen mun nan ma jox samay morom sama gosu xam na leen booy di bari bari yëpp maa leen dàq bëri maa leen mun. soxor kele soxor kele. kii mooy soxor bi lii contact la. contact la lii contact la de. man kii du ma mën a ñoom seen koo laaj ñoom ay entraîné laajteel kii. bi mooy sa ñaata combat. premier rey gars fat laay def fat. na ma ko sama morom ma rey leen. ñan la sama ay ñoom Lora yi ay ñoom Osika ah, ay Boussita jox leen ma man ba mat laay may soog a ñëw arène boo leen ñoo dox ma ñëw arène dama leen di jeexal wasalaam jaajëf. doo Dakar. waaw cher naa la. neex na de. waaw waaw neex na moom neex na moom. waaw ndam rek ñëw nekk sant yàlla rek di si remercier sama papa per Diakhaté ak ñoom Aydara ñoom Mour Sagna ñoom ñoo ma taxaw ba ma am ndam tey waaw. yaa équipe bi yaa leen jik wala yaa leen wàll la tax. non dama leen wàll dama leen jig nag. waaw dañu koo jaral nag. atum ren bi moom ah, lépp day neex bu soobee yàlla waaw. reprendre nga say entraînement. yàgg na lendemain bi laa commencé. gars waaw léegi am lu sot incha allah. ñu ngi may proposé. waaw ñu may proposé. am na adversaire yu may dégg. soo ko waxul rek ma wax ko. adversaire yooyu. lan nga wax nga wax ko. jox naa la nga wax adversaire yi. Onde le Fou nee daa bëgg a bëre. waaw. bëgg bëgg naa waaw. bëgg nga Onde. waaw bëgg naa Onde. na daa bëgg a bëre. ndax dafa bëgg a bëre man. nee na daa bëgg a bëre. waaw pare naa. waaw pare na lamb moom ma fi bàyyi lamb man bëre rek laa xam moo tax ma bàyyi sama jàng xam nga foog ma respecté ko te tamit mbëri tamit kenn warul daw kenn nañ ñëw ñu bëri ñun ñëpp ay jeunes la ñooy mayante xaalis suñu biir. Ndakaaru wëyu nga de bandi nga de. non du ma bandi. keroog mën nga maa expliquer ni nga bëree euh, caati ngeewal ba daan ko parce que dama jékki-jékki rek gis sa benn wàcc boo xam ne xalaatuma ko woon ci yow ak ni nga bëree moom mën nga ma ko expliquer. waaw moom dafa dafa jël yëpp def ko si xeex bi. man tam ma cokkaas ko mu ñëw fayu ñaari coup ma wàcc jël ko dëj ko mu jeex. ko jëlee am na doole. tuuti rek. Ah, maa ko ëpp doole. waaw maa ko ëpp doole booy yu dëkk bi di bandi bandu yëpp maa leen ëpp doole. bëri na booy kay bëri nañ. yow ñi la bëgg laa wax yow ba léegi waxagoo ñi nga. non instant yii dafa am si lu ñu nekk nii loolu moo tax. dañoo am combat bu ñuy wax nii pareegul su paree rek incha allah. kan moo koy dox promoteur bu mag wala bu ndaw. non sama papa Père Diakhaté moo siy dox nag man dañ may wax damal bëri rek. Père maa ngi waaw ah, ñu ngi lay fay fii. Ah, waaw yaa ngi am sant yàlla. yan combat nga gën a bëgg ci combat yi ma wax léegi. mais baax na euh, Ondelofu baax na. waaw Ondelofu dañ ko bëgg a def jaar jàll rek. jaarukaay de boo weddee laaj Ada ñun du ñu Ada Fass. moom mbër la c'est un super champion. waaw mais moom it kii tamit c'est un super champion te gis ngeen ko yéen moom li mu prouvé gum da ngeen gis benn moromam bu ko fi prouvé gum ah sincèrement da ngay indi saa yoo indee mbër ñu ne la moo ko mën wala moom il est en danger effectivement il faut que tu sois en danger pour que sa valeur mën a feeñ du dëgg gis ngeen li muy bëre gis ngeen ko ci combat yu bari à vous de juger maintenant mais li ci des moom c'est un c'est un c'est un combattant c'est un lutteur ba pare boole ko ceeg daf ko jël daf ko liggéeyam pour l'instant mais boo ko joxoon ki gën a tuuti fii nga fay ko njëgam mu bëre moom il ne s'agit pas de l'adversaire mais il s'agit de sa valeur même loolu mooy biram boo ko indilee gën mi mbër mi gën a tuuti fii nga fay ko moom njëgam mu bëre kooku xaalis rek moo ko ci mais non du loolu rek moo ko amal solo mais ci li ko amal solo ci la bokk li ko amal solo loolu ci la bokk parce que adversaire bi lay may xaalis mooy ki nga xam ne il a prouvé seen combat nekk njarndeem nekk combat jànq nekk combat combattant nekk combat technicien nekk combat bara bagarreur ngeen indi ko teg ko amateurs yi ñëw au lieu des fans club mais bu ñu boolee tamit amateur ak fans club ñu ñëw di seetaan làmb booy dakaar toujours rek il y a satisfaction. kaay. Père Djili nuyu naa la. maa ngi lay sama turandoo Baye Djili. maa ngi am jàmm bu baax a baax. ngeen waajee seen diggante ak Reug Reug. dugg ngeen ci ci lu ngeen xamu non xam koo tax nu dugg ci yow tamit. nit du dugg ci lu mu xamul ah nun boog du dugg ci lu mu xamul. Hmm. pour nun hmm. non la peur n'existe pas dans notre dictionnaire. ñi naan combat bi combat wu tay nga dee la ci guy gi da nga koy confirmer. non mais yow tamit ñun bis bu ne am nañ ko on est habitué ay habitué de grands événements la ñu yow tamit ku jaar Ama Baldé jaar ci yow Siteu jaar ci yow mais Reug Reug doo ko doo ko yóbbu au du lot loolu mënul nekk loolu ay waxu supporter la rek ay wax am amateur mais ñun ñu ko jël en âme et conscience xam nañ li ñu jël respecté nañ ko de par respecté na na xale la ndaanaan la bërekat la lépp la mais loolu doyul pour daan non non guy gi kañ nga ko mujjee gis. tey jii may wax ak yow. am kañ nga fa mujj. démb. ko gisee ci ban état de forme la normal. bi ñu bëgg ci moom. lan gis ci moom actuellement bi te nag xam nañu làmb ji fi mu nu yóbbu xam nañu li ñuy xaar yow tamit waaye jëli du lii du combat bu ndaw événementiel la. waaw loo tax xam nañu combat bi fi mu nu yóbbu ko quoi. combat bi lan ngeen ci yokk xeex bëre wala doole lan ngeen ci yokk. lépp loo xam ni boo ko defee am ndam rek yokk nañ ko ci combat bi mooy làmb daa sa globalité lépp rek muy bëre muy xeex muy mystique muy lépp mental et tout lépp préparé wu nañ ci parce que nag du tey lan am yenu mu bis bi quoi. yan wuñ bis amul problème. Ah, ah, ah, amul benn problème merci beaucoup. arbitre baa ngi noonu di waaj a sifflé dox ci diggante Papy Junior ak Ibou Lo ndaysaan Papy Junior Ibou Lo Junior moom ngeen jàkkaar lool ndaysaan Ibou Lo moo la woon ginnaaw ndaysaan ndaysaan kii nekk parcelle mbooloo bu suñu papa Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan xale yaa ngi noonu Papi Junior ndeysaan moo nekk les tigres les tigres bu suñu papa Mbaye Gueye Ibuloo moo nekk parcelle mbooloo ngemboo ngemb Lagos wan la ginnaaw Papi Junior moo duróog moo duloo rek ndeysaan am na trace mu ngi bëgg a Papi Junior Ibuloo Papis Junior jiital tànk di daw na jëli ko daw na jëli ko daw na jëli ko na saako yi dara amul dara amul wala déet lu xew hee Papis Junior daa jël tànk bi Ibou Lo bañ daw def rotation wane ginnaaw daw ba génn saako yi dellu si ñëwaat cey làmb arbitre bi sifflé waat na Ibou ndeysaan ak Papi Junior Ibou Lo ndak Papi Junior jëlaat na da koy daan daan na ko doole Papi Junior mi ndaanaan la Papi mi daa mën a bëre Papi daa mën a bëre Papi daa mën a bëre Papi daa mën a bëre Papi daa mën a bëre ndeysaan xoolal entraîneur ba mu koy baatare mu koy may xaalis daaw na ci Pierre Ibrahima Mbaye daw na ci Père Ibra Mbaye ndeysaan Père Ibra kott na ko ndeysaan Père Ibra Mbaye kott na ko oh les Tigres la nekk bu suñu papa Mbaye Gueye les ak écurie Fass benn la yaakaar naa ni benn la de ñoom ñaar duñu laale déedéet duñu laale ma ngay dem Poli TV bëre nga waxoon naa la ko ku daan saa yu la neexee nga génn Lutte TV jël na la wasaare jël na la bari yëg-yëg nga am tay ci làmb ji ak ndam li. waa xanaa kontaane ak grand bi waaw ginnaaw bi ma sant la ba pare jullit si noonu xam ne sallallahu alayhi maa ngi sant samay ñaari waajur di sant tamit képp kuy wuyoo tudd hôtel Dior rek maa ngi lay di sant di sant sama copain yi fi teew ak sama supporters yi ñu si mel ni sama grand Adama Diouf Abdou Aziz Diouf wala wala Babacar Diouf Pape Sara Senghor ak sama doomu bi Daouda Ndour waaw maa ngi bëgg tamit aussi waa Famb sama dekk wala waa Jaxaaw boog wala waa Fatick ah ma leen di bëgg yéen ñëpp ñoom ñëpp di leen gërëm bu baax a baax. sa ñaata combat. man bii mooy sama quatrième combat. ñaata victoire. sama trois victoire benn maa ngi maa ngi jéem. Ah. di nuyu sama sama sama président écrit. ni nga bëree ba daan mën nga ma cee dellu si. ah ni nga bëree ba daan. ni ma bëree ba daan. non ni ma bëree ba daan moom xëy na moom may ndam rek. waaw yàlla te bu xe waaw lu yomb la man daal wax ni nga bëree ni nga bëree. waaw waaye dama ko sol naax après bu ma sonee naax kottu ko kottum gi mu biti après bu ma tuuree ma teg sama benn tànk. xëcc ko mu teg fees. bi nga ko daanee loo njëkk a xalaat. bon bi ma daanee xanaa sant la rek gërëm sama borom rek. waaw. jël nga drapeau Lutte TV. waaw jël naa drapeau di waaw di si kontaan di kontaan tamit si waa Grand Yoff ndax man instant yii man man damaa gëmoon doomu Grand Yoff laa doomu si laamee doomu Grand ndax man bi ma nekkee tout tànk ba tey maa ngi Grand Yoff nga da bëgg waa Grand Yoff bu baax a baax li jëlee jëlee Grand Yoff asalem Grand Yoff cité ba waa ba waa ba waa ba troisième koñ maa ngi leen di bëgg ñoom ñëpp. amiin jël na drapeau melen daal xam nga ne buy màtt yow lay màtt. <laughs> waaw loo loo bokk Adama Diouf. Adama Diouf Adama Diouf sama grand moom ma yar fii Dakar quoi. moo la jàngal bëre. waaw voilà moom Adama Diouf ak a Diaby ñoom ñaar ñoo ma jàngal bëre. waa Ablaye Diop tamit sum production teg ma si yoon. sum waa waa sum production teg yoon. waa waa Jaxaw maa leen di sant maa leen di gërëm. ndax gis naa ma bëggee gis naa nañu sonni ci man surtout waa femme di nuyu sama yaay bu baax ak sama papa Abass Senghor ak sama rak yu baax yi nekk si biir dëkk ba fanaane tey man inshallah jaxaw lay fanaane guddi guddi jaxaw siin kay waaw te buñ ci loolu maa ngi sant nga xamante ne mooy mooy waa femme bu sama dëkk ak waa jaxaw ak waa commune Thiaré ñu si mel ni ah, monsieur le maire Badara Ndiaye ak Emily Faye sama jërbaat ñoom Ibou Diabé ak sama grand bu baax bu dëkk Diouroup Omar Ndour ko xamante ne lépp nag si man moom ak Mbaar Faye ñoo ko def. waa di sant waa réseau Fatick yëpp. léegi bàyyi la Adama eggale ko. waaw amul problème Adama koy dee kaay wax ko fii. mais Adama temps yi da nga nekk ci forme. non non man toujours eh, ci forme laa nekk. non lii moom wax laay lekk du ma def dara. loolu moo tax ma nekk ku fa ne Adama màgget na ak ci erreur bu ah, yaa ngi ci waaw li may a baax problème boobu laa am. Ah, da nga am doole macha maa ngi ñàpp rek nekk naa barmat ku ma ci moom tamit gars yi koo mënee bëri duñ la jël. mais lu ma ci kaas mooy yow ba jabar say gang boobu nga woo ñoom liiru jaan ak ñoom lu ñor rek moo tax la bu ngeen ma wootee damay xool suma bi. mafia bi parce que lu kenn du ngeen ma ko yegal bu dee doon ngeen doog maa yegal loolu mënu ma cee ne. mafia bi ci nga ah, ngeen ma ci boolewul nag. tàcc tàccaaral waaw tàcc tàccaaral bi yéen a ko xam man xaw ma tàcc tàccaaral. Ah. man bokk nu ci affaire bi nu mu tudd yëtaale boobaale yettaale boobaale bu amee du ngeen ma boole. ñu ngi tuuti seen affaire boobaale seen affaire loolu ay tapale la. baal ñu. non baal naa la xam nga. mais yaay seex la man dama gaaw a baale mais damaa kontaan. lu ma kontaanee mooy waa Jaxaaw. gis nga diw baax na mbokk yi nañ ko wax. boo xoolee fii waa Jaxaaw ñoo jëlee ay kaal seen maire yi Badara Ndiaye moo leen utal ay kaal utal leen ay mooy a ñoom ñoom Ibu ñoom Ibu Ibu Ibu Jon ak mbor yi nekk Jaxaaw yëpp assurance Latir Diagne ñoom ñëpp ñu ngi seen ginnaaw mbor yooyu yëpp boo gisee gisoo leen ci biir géej mais ñu fa lañ yoon tey koñ bi fees del loolu yombul bu loolu weesoo nag kontaan baax a baax ñaan ndam bi am ñu am mi yàlla na mu jig ñu. boo na nga miin bi de. non arène miin naa ko fii adressé ngoon fii moom kay bu amul ay lal baas kay xam naa ne moom mbër may di fii day defaraat. code yi da nga mel ne ko xam code yi. waaw xam naa code yi mais kontaan naa bu baax a baax. oh Adama suñu waajaa ngay dem de sant yàlla woote na ba sonn ba ngay dem ah ah loo ci mën mbañ gàcce ak bébé Saloum mbañ gàcce bébé Saloum mbañ gàcce bébé Saloum mbañ gàcce ak bébé Saloum mbañ gàcce bébé Saloum mbañ gàcce bébé Saloum mbañ gàcce bébé Saloum ñaari xale yaa ngi noonu waa combat bi dafa war a gaaw ma ngay Bébé Saloum mi ay rokkas yu garaaw la yor Bébé Saloum mi rokkas yu garaaw la mañ gàcce tamit ah bëre leen waay bëre xale waay ma ngay dóor ma ngay dóor jëli na ko ma ngay tànte de Bébé Saloum ma ngay tànte de Bébé Saloum ma ngay tànte de xaw ma lan lay togg moom Bébé Saloum waaye ma ngay tànte daal. Bébé Saloum ma ngay tànte mbañ gàcce Bébé Saloum combat bu yàgg moom xam na la may def dàll bu xat sama xol bi lay jàpp parce que man damaa bëgg ay xale teel a libéré amateur yi supporters ko ci stress ah ah waay combat bi waay ayca waay booy ayca ayca ndeysaan mbañ gàcce combat baa ngi noonu mbañ gàcce mbañ gàcce ndeysaan mbañ gàcce ak bébé Saloum bébé Saloum numéro 2 mbañ gàcce mbañ gàcce moo ngem boo ngem lu weex li Bébé Saloum numéro 2 moo fete ginnaaw Mbagne Gàcce jongale na ko tegal ko sees luy xew Mbagne Gàcce Bébé Saloum Bébé wër na ko ndomba ma wër na ko ndomba ma ngay dóor ma ngay daan na daan na daan na ko daan na ko xàcc Bébé daan na Mbagne Gàcce Bébé daan na oh waay Saloum waay eh bébé Saloum waay. bas numéro 2 ak Boy Ndoye. Boy Ndoye moo la woon ginnaaw bas. waaw waaw waaw. del wax écrit écrit. déplacement spécial baa ngi noonu Bass 2 Bass 2 ak kan la. Bass 2 mooy ndoy. arbitre bi sifflé na Bass 2 ndaysaan moom écurie Thiaroye la nekk Boy Ndoye mu ngi nekk écurie Thiès Mbolo ndaysaan moom Boy Thiès la écurie bi mu jugee fa la Lamine takkee soxna.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 Lamine ko andi Lamine ko andi jóge Thiaroye ba ci Thiès moom jeexal na xale Thiès yëpp doog a ñëw parce oh. que mi ngay jóge nag am booy Ahmed dem la mooy vraiment macha allah def na lu na Thiaroye Cap Vert bi ko doon bëgg a tëgg lamb ji joxe joxe ndox mi sponsor yi andi reporter combat arbitre ko waaw li neexut yow ndeysaan su ma paree nag jël Adama Diouf defal ko bagage. Adama Diouf jël Adama na naa ko bàyyi du tudd tudd comédien yi. Euh, Adama Diouf du comédien moo tax ma jël ko man comédien yi bàyyi naa leen comédien mooy ay wule ñoom alaaji may moo tax bañ delloo sama avance maa sant yàlla. loolu comédien bu la daan wuli wuli comédien la. Lirou Diane lamb comédien la yow léegi ki day sàmbay mbay nag day kaajo rek du dara. ndox mi sell na te wóor ndox mi neex na de seral mi daal naan naan yéex naa ñëw ci arène bi. mi dama bi ko gars yi commencé naan dootuñu naan beneen ndox. am na 10 litres jëlu na ko am na 10 litres. yàlla xam na am na sax am na ke walaal asim ndox mi du lim nekk sama ndoxu gannaaw de. kooku lay mais ku ko ñam dootoo ko bàyyi. kooku lay saf kooku. qualité bi ci am ne walaal sama ndox de mais ku ko ñam dootoo naan beneen ndox. war naa cee wutal soxna muy liggéey ci ndox mi. Oh. di ko liggéey di ko liggéeyaat déggoo ma di seet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 dóor yu jóge lay dóor de. bal na ko fel na ko bas ngay fayu. mais action boobu bu mën na wër sa bas. ah loxo bi bi noonu. waaw bi koy fel. ah Lamine ma ngay tegu ci suuf de nduru na ko de. xale bi da mel ni ndaanaan la mbëru Thiès bi daa mel ni ndaanaan la de. waaw Mbisaan na ko tey jam mooy mooy moo garaaw de. lu ne moo koy nee na taxawal na Calcio.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 gis nga li na ko ndeysaan ñoom ñaar du yomb bas booy ndooy ndeysaan fàqataan na ko dafa mel ni ku kaaw dafa mel ni ku kaaw la dóorante yi daa metti na waaw noonu ku lekk avancé de pam waaw ah, te mënuñoo sa si xool neneen nu dul dóorante yu metti moo man dóorante dama ko bëgg dama ko bëgg xeex rek di dem ardo nga ne daal waxaatal li nga waxoon lan da nga ko bëgg xeex waaw demal ndeysaan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 waay tubaab ba waay am na lu mu yor joxoñ ko ci ñeent xibla yi ndaysaan doog a taxaw promoteur ba bi pato de man xaw ma nooy tëggee mbër ba pare ñëw dend ak moom di ko conseiller ànd ak moom di wax ak moom. man daal lii jaaxal na ma. tubaab bi def na lu maamam deful. wallaay def na lu maamam deful. def na lu baayam deful. loolu baayam deful. tubaab bi tubaab bi dafa mel ni pare na. waaw ah, pare la boos. tubaab bi kay fi dolli wane na boppam wallaay wax nga dëgg. def na ci taarix loo xamante ne maamam defu ko baayam defu ko. mu fas yéene ñëw fii Sénégal ngemb. bëre. tey làmb làmb ngi de. tubaab bi ñoo ngi koy làq engrais daal ñett butéel yi règlement bi wax aadama tubaab bi moom respecté na ko moom. teel naa jël ñett butéelam teg. di xaar bis bu rafet. waaye adversaire baa nga noonu yéen a ngi koy gis. ndeysaan muy Pape Diouf muy ndaanaan ci làmb. Ndeysaan Pape Diouf a ngi noonu. Ndeysaan. cey lamb. lamb a ngi nii. Adama. Adama xaaral ma dem foto. ba signalé na de. daam lu muy léemu. Ndeysaan tubaab ba de moo gën a gëm xar fa xuufa sax mbër mi. tubaab ba signalé na. ndaysaan signalé na a arbitre bi tubaab ba signalé na arbitre bi sifflé na Pape Diouf ak Big Pato numéro 2 Pape moo la féetee càmmoñ Big mooy tubaab bi moo xees ndaysaan cokkaas na Pape Diouf Big Pato Pape Diouf Pape Diouf Big Pato ndaysaan Pape Diouf liñ koy yëpp mooy bul ko dóor fexeel jàpp ko ndax mën ngaa dóor jël kuwam Pape Diouf Big Big Pato Pape Diouf jàpp na ko Pape Diouf jàpp na Big Pato Pape Diouf sol na ko lu mu nar Big Pato bañ na Pape Diouf Big Pato Big Pato bañ na Pape Diouf daw na jëlu ko mu buux doon na koy perkut laa ay Pape Diouf mi kafu de tubaab bi doon na ko tubaab bi doon na Pape Diouf daan na ko Pape Diouf daan na Pape Diouf daan na Big Pato numéro 2 Pape Diouf daan na ko Pape Diouf jëli na ko daan ko Pape Diouf daan na Big Pato Pape Diouf daan na ko Pape Diouf daan na Big Pato Adama Pape Diouf daan to share the ring with him. nee na bi ngeen jaaxaarloo seen jaaxaarloo bi. Hmm. dafa kontaan si nu mu demee moo tax kontaan na pour mën nekk fii ak yow pour xeex. dëgg la ne ko sant naa ko gërëm naa ko. naa ko wax mu découragé da góorgóorlu rek. don't worry you know your next fight you might win. your next fight you will win. you don't you don't worry you don't worry. you don't worry dégg nga you don't worry. waaw jërëjëf jërëjëf. kontaan naa mais fils kontaan nañu vraiment parce que si ay tey fils vraiment exemplaire. Mm-hmm. parce que ñun Sénégal. Mm-hmm. pays de Seranga la. Mm-hmm. mën nga bëree woon neneen. mais da xam ne vraiment kii dafa ñëw nekk sa gan. nga bëree moom ci aar daan ko ci aar. vraiment félicitations parce que yow sa baay mbër la. ñu xam ko bu baax muy Serigne Ndiaye. mais ñàkkuma bëri rek. man damay fay def. champion nga billaahi kisim champion la. mais sama baab dafa naan wax ne moom ko déwén. ko indi ay Lamine mi xam nañu baax man maa bëri. ci ci la. yow wax baaxul sax. ñoo leen ngeen ñoo leen ngeen wax sax parce que maanaam lamb moo doy waar. amul benn incident bu wax rek mooy ne sponsor yi ñëwaat jàppale lam mais bu leen yem rek ci jàppale promoteur yi jàppale aussi presse en ligne bi liggéey bi métti na dañuy déplacé wu loolu et puis dañ soxla li bëgg mooy taaral lamb indiwaat lamb culture boo xam ne ñëpp a ci gis seen bopp te li ñaan yàlla mooy sénégalais bu fi ñëw euh, étranger di ñëw di bëri comme Pape Diouf di bëri moom ci aada ak cosaat daan ko jël boo xam ne ci lamb la ko daan te liñ bëggoon tey mooy moom moo xam ne fii ay am de valeur ñu fi ay am de ñu am bi ñu xam ne ay nit teraanga lañ parce que tey Pape Diouf mënoon na ko gaañ mu ñaaw mais ni mu bëreeg moom daan ko ci technique man loolu moo ci gën a neex te li may wax mooy na booy bi na ko gars yi tëggal ay combat I just want to explain why we may exist why we exist day you know Senegal is Senegal is a country of, of culture of wrestler yeah. there is many uh, Senegalese which will be in Europe to fight but we invite here, you here yeah. to make the fight with Pape Diouf Diouf which is a very big champion his name uh, is Pape Diouf number two. And today you welcome in Senegal. You hospitality. You was here for the winning the cup. Africa Exactly, many things about. And now we are very happy to tell you welcome to Senegal. It's your first fight. It's not a problem. You yeah. will, you want to come back next time to win. Yeah, for wax rek mooy li ma ko doon journée bi maa ko dijee Lion du Sénégal li ngeen ñu defal rëy na ndam li. jaajëf émission bi jaajëf jaajëf yal nañu yàlla may coupe du monde bi moo jeexul moo tax nga daanu mais garaawul. <laughs> waaw ah. waaw. mais dina jeex amul problème <laughs> bidel bee jeexul moo tax nga daanu.